loi boobu kenn discuté wu ci daa ñëw jàll assemblée nationale comme lettre à la poste la loi Abdou Mbow la tudd mën ngeen a vérifier Medina benn maçon moo jugee ci kaw immeuble daanu euh, ñàkk bakkanam Khalifa Ababacar Sall juróomi nit ñoo def accident ci boori Cambérène googa jëm Kër Massar ñaari nit ñoo ci am ay gaañu gaañu yu métti ba ñu teggandi ab diir seen campagne boobu président Macky Sall nee na bu ñu renégocier waatee contrat pétrolier yi dinañ gis situation bu désastreuse. Pape Mademba bi tey dimbali na Amadou Ba ñu dalal ko foofa Kaolack dalal wu mag a mag XXL Bassirou Diomaye Faye ca Fatick la génnee bale ba dal ne ñi ñuy jiiñ euh, sàcc alali réew mi ñoo ne man danger la pour Sénégal waaw moom doomi baykat bi mu doon moom Bassirou Diomaye Faye nee na du ko weccee ay nit ñoo xamante ne nii dinañ seetaan baykat yi ñuy lompoñ baa ñuy dugg ci guuta kon ñi nekk longue détention démb ba ñu renvoyé seen Euh, jugement ba ca tribunal la ñu fa yëngal yëngu mer gu am solo Aliou Mamadou Dia nee na moom bu pur nee na ñaar fukki at yi mu def ci développement moom mooy seul candidat bi ko def Déthié Fall daal ne Thiès faaw ñu delloowaat ko ay yëfam euh, Papa Djibril Fall ne développement Idrissa Seck moom ci wàllu mi féete am na ñooñ ñu nekk ancien UJTL yi rejoindre nañ ko Karim wadd fi mu nekk nii ba tey ñu ngi koy déglu mais Karim nee na élection yi du mën a jeex ci premier tour faaw mu am deuxième tour moo tax muy dégloo agum